bokki jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp yàlla nanu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci suñu diggante ak suñuy moroomi jaam ba li muy wax ne bu ëllëgee ñi ko doon topp ñëpp ci ay ndigalam ak di moytu ay tereem aljanna mooy doon seen kër waaye fekk na bañ cay laata dugg am na luñ génne ci ñoom ñu soog a yéene seen bokk ya seen aljana ya dañ dëkkal ñook ñoom yàlla nuñ ci yàlla boole yàlla nuñ yàlla dimbale ba bala ñu fay jóge bañ a topp kenn waaye kenn bañ ñoo topp gannaaw bu ñu santee suñu borom nag noo ngi dénk suñu bopp di dénk ñépp ñu maaseendoo ñun ñépp dugg ci yoon wi nga xam ne moo jëm ci ragal yàlla ndax ragal yàlla kat dafa war ab jaam digganteem ak yàlla waaye mu sàmm ragal yàlla googee digganteem ak kuk njabootam ak ay bokkam rawatina ay doomam ak ñi nga xam ne dañu ko ko dénk ak képp koo xam ne daa ñëwal boppam dénk ko boppam ne ko yow lay déglu ci lu mu mën a doon ñoo ngi leen di dénk itam ragal yàlla mi nga xam ne ku ko am yàlla nu ko yàlla defal yàlla dana dox digganteem ak lépp lu muy ragal waaye yàlla dana ko doy sëkk ba du wuti yenn yi ba yenn yi di ko ca fekk waaye ku ragal yàlla it yàlla dana ko wan saa su nekk yoonu muy jaar ba génn ca xat-xat yam nekke mooy fi mu wax ci alquran wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaytu laa yatas laa yaxtasib wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra yàlla nañu ko yàlla defal tomb bi ñuy fas yéenee waxtaane tey nag day jëm ci xew-xew boo xam ne daana fi am bu yàgg ay at ci ginnaaw waaye dafa mel dafa dellu siwaat muy ñi nga xam ne dañuy nekk ci seen seenum réew wala seenub dëkkuwaay ba yàgg xat-xate jamono dab leen ñu jekk-jekki na bañaax bañaax moomu mag ñi daanañ wax ne nekkalu fi kenn kudul ku ko am ku ci am yitte rek mooy xëy-xëy takk ab saagam génn këram du wax kenn dara te xamut fu mu jëm su taxawee ci yoon wa fu war a mën a jóge mu mu arrêté ko bu ne ko foo jëm mu ne ko foo ma yóbbale baax na loolu mooy bañaax waaye balañ caa agsi ñu junj tuuti xam na loolu ab jullit dafa am lu ko ci lislaam sant ak fu mu ko ca joxoñ ñun ñëpp maase nañ xam ne nit bu fekkee dañu koo jàppee yaram di lekk ak naan rek ngir di dund amatul benn njariñ su fekkee lekk ak naan googee yaram way soxla àndut ak lay dundal ak ruuxam muy gëm yàlla saa su nekk muy teew ci kanamam waaye di defar jëmm ji it di solo ak summi jekk lool te fekk boo jaxasoog moom da nga ko xeeb lool ci am xel ak ruuxu gëm yàlla loolu itam du taarab dara waaye saa su nekk nit ki kër kër it te fekk kër kër ji amu ci benn tomb bu lu dëggu ci xolam lu mu cay bàyyi digganteem ak yàlla it amul njariñ ñun ñëpp xam nañu ne lekk ak naan moom ñi yàlla bind ñépp tañ teg leen bët ñun ñi ak bàyyi ma yépp seen yitte la ñoom ñëpp moom la ñuy xëy di wër ñi ne ci àll bi moom la ñuy wut ñi jël yeew leen ci kër yi it soo leen ko joxut daañu la tànqal ba da ngay mujj wuti ko jox leen ko foofu ñoom nit ñoo fa daje suñ génnee ci loola ñun nit ñi ak bàyyi ma yi ñun nit ñi kese kese ñun ñëpp dañuy bëgg nag di lekk lu dul la bàyyi may lekk muy lekk ku baax ci nit waaye di nekk fu féex di dundul dund gu baax lekk gu neex te baax ci yaram ak fu féex nit ñépp ñoo ko bëgg soxlaa ndoom muy nit ku baax ab jullit ak ub yéefar ñoo ca yam ñoo bokk lañ cay soxla ci seen yaram waaye nit ku baax akub kàccoor it ñoo ca bokk lañ cay soxla ci seen yaram waaye tànneef yi nit ñi it ak ña gën a yées ci nit ñi it ñoo ca bokk yam kàpp kenn ku ci nekk bëgg na fu mu nekk di lekk-lekk gu baax te neex ba nopp muy nekk fu féex di am ngelaw lu muy nooyee waaye lan mooy wuutale bàyyi ma yi ak nit ñi buñ duggee ci biir nit ñi lan may wuutale nit ñi mooy diggante yéefar ak jullit lu ñu koy xàmmee mooy jullit bi moom yàlla daf ko naan del lekk lii benn ñaareel ba dee ko wute nii fii ngay nekk muy féexit dee ko wute nii bala nga caa nekk te di ca nekk nii muy déglu loolu rek mooy wutale diggante jullit bi ak kudul ab jullit ak bàyyi ma yépp kon ab jullit su demee ba yàgg mu gis loo xam ne ak jaaxle la dafa war ne waat teg ku xamut fa nga jëmoon fa nga jëm da ngay wàññi ko delluwaat fa nga jóge woon ñun ñëpp gis nañu ne fan yii mbooloo mu bari ñu ngi walwali doon naa ko fi junj keroog sénégalais yi ñooñu ñu naan yëral leen ma samay mbir mu di leen seetal bokk yi ko naan seetal ma gisu ko yaa ngi moom a ca yam waaye seetal ma gisu ko gisoo ko ñooñu bu ñuy seetal sénégalais yi junjoon naa keroog ne li ëpp ci liñ leen di wax te loola koo fa dàkk da nga ko fa fekk waaye ab tukki dana ca bokk tukki bi ngay waaj nag mu ne waaw daa ami gàllankoor loolu moom Sénégal yépp la soo demee fi ñuy wute ay passeport da ngay defee ne maanaam ko amul passeport du ko jig dañuy ràng am ci ñoo xam dañ naan leen doo ko mën a am mu jaral leen alal ju bari mu ne wajuñu fenn de waaye dañ leen yee dañuy bañ aw yoon bett leen kon xew-xewu wala wala jëm ca réewi tubaab ya ñun ñëpp yàlla na fi yem nii rek waaye su fi yëmutit kenn ku nekk mën na caa am mbokk mu ko jege lool ndax sénégalais lim xam mooy diwa nga barab sàngam rek am na ko daf fee tàggoo woon jëm ci Amérique du Sud ba mu demee ba àgg ci réew mu ñuy wax Uruguay mu sonal ma lool bis bu set mu woo ma gisuma fi sénégalais gisaguma fi sénégal dama fee tumurank gisaguma fi sénégalais ma ne ko sëñ bi dama lay laaj laaj boo xam ne tey su ma ko waxtaanee tey yow dama bëgg nga bañeeti ma woo li féeg yenti weer ci kanam ndax dama am fu may dem ndax foofu nga nekk ay jigéen am na fi mu ne ma waaw waaw ma ne ko ay góor nag mu ne ma waaw ma ne ko ay gone mu ne ma waaw ma ne ko ay taxi ak i tabax mu ne tabax yu yéeme sax yu rafet ak i taxi ak i restaurant ma ne ko yaa ngi àdduna kon yow yaa ngi àdduna toog fi te muñ te jàpp ci yàlla ndax ñooñu nga fi fekk bañ indi fi taxi yeeg tabax yu gudd yooyu ak li ñu fiy jëfandikoo lépp kenn dafa jëkk a ñëw xaar fa yàlla keneen fekk ko fa ñu dafa xaar yàlla ba mu xumbe noonu mu xumbe te nga fee toog xaar yàlla te bañ a tënk ci sa mbir ci ay sénégalais laa fiy fekk wala ay ivoirien da nga fiy jéem a fekk yàlla rek mi nga bàyyi Sénégal gii yàlla dimbali la. walwal ji kon am na ci loo xam ne te daanaka sax mooy doon yax bi rek mooy ñàkkub yar. ñàkk a defar ñàkk a toppatoo dama koy yan nag ñetti ñetti jëmb laa koy yan ne ñoom am nañ ci wàll wu metti walla woo xam ne bu ñu ko ci génnee dara desatu ci ndax su fekkee lislaam dafa xàllal ab jullit nu mu war a wute te bu amee mu seet na mu koy sàmme doonut ne am ngi rek kon moo am solo ba tax jar boo bëggee tukki moom lu mu la jaral jaral na la ko ñoo ñuy dugg ci ndox mi di faatu tey ki suba jot na ab xabaar bu wax ne am na ci kook baayam juróom-ñetti fukki bëy la jaay ak lam dajale woon muy juróom-ñaar fukki junni mu jox ko ko mu dem ca ba faatu na ñàkk na ko am na loolu lu ko waral ñett ñi ko yoon mooy ñan la ci jëkk mooy way jur yi bokk yi way jur yi bu jëkkoon ku masaan am ak njaboot dangay seet ka nga ci jëkk a gis mu mag ca nga xam ne jamono ba nga koy gis amoon nga jot ndax booba kër bet kër jottagu la amoon nga kàttan ndaw nga woon amoon ngam xel gone nga woon kooku saa bu la ab yaram rëccee dootoo mën a yar keneen moo taxoon ñuy góor góorlu ba ki ki ñu jëkk a gis ñu sonn ca lool su ko defee ñi cay toppaat mu joxañ leen ko ne leen xool leen ci diw loolu moo daan waral bu ëllëgee su fi bàyyi ko moom ca saasa dañuy daal di jël lam yoroon lépp yàkkal ko ko mu yor leen na na leen seen bàyyi yore woon benn jafe-jafe du am bu fa jógee ka ca topp topp ca ka ca topp topp ca ba ba ñoom ñëpp ñi mën a naaw sax ay laaf ba naaw naawal seen bopp waaye ana lu xew léegi ba tax way jur yi am ci yan seetatuñ ki ci kiñ ci jëkk a gis ak kañ ci mujj a gis waaye ka ca gën a jekk rek gën caa yor alal gën caa yor xaalis ñu gën a ko yaakaar la ñuy jox kàddu lu ñuy waxtaane su fekkee moo ci gën a doon ndaw te ñëwagut dañ naan nañ nañ xaar ba diw ñëw ñu ne ah gone la rek ñu ne déedéet gone la waaye gone bu loxoom setee mën a bokk ki mag dem sax far ba di ko dénk seen gannaaw naa ko su fi jógee nangam ak nangam te dara waralu ko lu may alal ndax loolu mënut tax ba gone yëpp kon ku nekk bëgg a teg ndawal kenn ku ci nekk ñu di la xool ay gët naan la yow sa sa yaay wuute nag ñi fi ñi ci des ñi fi seen yaay nekk woon yow sa yaay musta noppalu musta tëdd musta nelaw ñenn ñi ci des nag bu ñu amee jom nu ñu mujj def nu ñu mën a def ba am danañ ko def muy benn yan bi ci wayjur yi ñaareelu yan bi mooy état. état bis bu set ñu dégg ñaan am nañ ci réew sàngam nangami milliard nangami milliard nangami milliard te li gën a jafe ci réew mi mooy dox ba for ñaar fukki dërëm sax te nit ñi daanañ fortaatu moo ne ay ñaar dërëm ak ay juróomi dërëm waaye li gën a jafe ci jamono ñu fi ne mooy for aw ñaar fukk wala aw juróom kenn ku ko am da nga ko na nang ko tum denc ko fu sori soo koy yebal ci yeb ci sa jiba da nga koy yóbbu ba mu àgg nga gunge ko ba mu àgg nga bës ko ba mu wóor leen la ma nga fa nga fas ko ndax boo ko ñaar ñàkkee xamu ko nga koy amaat saa su nekk nga dégg ñu naan diw may na ko 15 millions diw may na 50 millions diw may na ko oto buy jar 200 millions di toilettu di waaj di wàll ci yoo xam ne amul benn njariñ loolu it ndax amuñ ci wàll ci wutal ndaw ñi ci xaalis bu bari boobu ñuy tasaare lu ñu liggéeyee ba seen yaakaar man fay nekk muy ñaar ñetteel bi ki nekk ci état. ak yoroog njaboot yëpp ñoom ñëpp ñu ci bari ci Sénégal yi am nañu ay sëriñ am nañu ay sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ bi itam wàlla ma nga ci baax a baax a baax a baax ndax nitug état dana ko déglu mu di ko digal ku dut nitug état ku yoroog njabootam kese mook ñoom ñu dëkk danañ ko déglu waaye ñoom itam am nañ ci wàllu wu metti ndax tey bari na yoo xam ne bu ñu koy yëgle bëgg nit ñi ñëw ci ña ëpp ci ña ñuy gën a bàyyi xel mooy ña nekk bitim réew ndax daa mel ne ñoom la ñuy fàggu di ko yónnee mën na ëpp lool lii waa fii di joxe te moo ne am na kilifa goo xam ne doomam daa jóge woon daa jógtee woon di jënd ay oto di commerce di kër kër yi da ko woo ba mu ñëw mu ne ko lii ngay def ni yàlla bu mbarkeel li ma bëgg nga defe ko mooy dugg ci àll bi ñu doon jox seen takki dugub yi nga di ko dunde di leen jox seen tari gerte yi nga di ko dunde ak seen mbëli sëb yi mbël mooy ci sayu sëb moo gën a barkeel mu ëpp njariñ ci biir waaye su fekkee rek bokk yi jamono dox na ba dàll wu jóge bitim réew sax lañ gën a gëm ci dàll wuñ defare ngaay kii marocain pire la mu ràkkusi la wala benn dëkk ci Maroc fu ñu koy defaree mën nañ ko jënd juróom-ñaari junni fekk da ko yor moo leen gënal jënd dàll wu ñu defaree ngaay gi mu di ko jënd ñaar junne ñaar téeméer mag maase rek gëmanoo bitim réew ba màggal gi wala gàmm gi wala xeeti xew yooyu yëpp bu ñu koy woote ñeñ cey gën a bàyyi xel mooy waa bitim réew ndax loolu itam mënut a fexe ba puus taalibe yi taalibe bu nekk ba ko gën ndax mu ràññi ko moo ne it suñ ñëwee di seet sëriñ bi ki nga xam ne moo bàyyi ko boori Koupentoum day rëb Koupentoum ci misaal Pastef rek lañ yor waaye kuy séentu ñu indi la lu bari moom mën nañ ko bañ yor moom su fi dajee ak boo xam ne ma nga bàyyi ko dëkk sàngam ca Europe dañ naan nañ xaar ndax ñii dañoo yëglu woon laata ñuy ñëw ñu ne tekk yor seen juróom-ñaari junni moo ne na ñëpp def lañ def dëkk ak dëkk lañ dox yaakaar sëñ bi te jaarale ko seen diggante ak yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye déedéet ñooña ñooy jëkk a dugg ñooy ñoo fay mujj ñoom la ñuy waxal ndax loolu itam mënut mënut xëy taalibe bu nekk mu ne ma itam danaa dem ba fu ma neex duggati léegi kon ñett ñooñu kenn ku nekk yan na ci yan bu diis a diis a diis a diis a diis moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jaarale woon ci aw làmmiñam ne moo xam boroom kër la walla état la walla kilifa gu état yaakaar boroom kër yaakaar ko la yàlla waxoon nañ ci alxuraan nee na woon yonent bi nee leen ñoom ñi ñëpp kenn ku ci nekk su fekkee dafa am responsabilité na fexe ba moom mu bañ a dem sawara waaye na fexe ba moytul waa këram sawara itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne tegaat ca ne loolu li muy tekki mooy kenn ku ne ci yéen ab sàmm la ca ña ko yàlla booleel te su ëllëgee danañu ko taaj mu rendre compte mu wax ananum leen sàmme woon ñoom itam ñu laaj leen ananum leen doon sàmme moom bis bu yàgg lay doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne doom mooy nekk nitub état mooy dem ba nekkub sëriñ ne doom it ki ko jur am na ci wàll wu rëy rëy rëy ginnaaw ba mu ko juree ba ca jëkk mooy moo ko sabablu yàlla dogal ko kon am na lu ko ci war te liñ ci warlu weesuwut nañuy fexe ba muy lekk aka naan aka solu aka faju bu wéradee waaye su xasee ba weesu loolu génn nañ ci seen yoon nekkatut ci moom moo tax yonent bi ne woon kenn ku nekk buy juddu day mel ne ndab lu set wicc bokk yi potuwaas bi ñuy satale gone yi satal sax am na ñoo xam ne xamuñu ko bu jëkkoon bu ko soxna daan def jigéen day tàllal ñaari tànkam teg ca xale ba ci diggante bi mu mel ne wanag ci moom ba yàgg jamono soppi ko bañ da ko def ay pot pot ba mu fi toll nii bu ñu ko soog a liggéey ba mu ne ci jabi lu la neex mën na koo doon lu la neex mën nga ko caa yàq waaye bi ñu demee ba tàmbali ba gis ba nit teg bëtam ñu di ci yàq nangam nag la tàmbali di tey am xel ci boo ci defee ndox di naan te moo ne ndab rek la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kuy soog a judd ndab lu mel noonu la seet wicc benn baayam moo koy jox moo koy def ab yahud mu bëgg alal lool ba gëm ne maanaam ku amul alal doo ginnaaw ku amul alal doo wax daa war a am alal yahudi daan yi mooy bëgg alal ab yahud day bëgg alal wala mu def ko ab nasaraa day bëgg àdduna mën a solu man a waaj goog lool buy wax sax làmmiñ yu ko yàlla ko jox mu war caa waxee déedéet waaye da koy mottale ay wagg ak i baaram ak ay gët te allamsu wal hamsu waylun li kulli humazatin lumaza waaye mën na ko def ab majuus muy koo xam ne day jaamu xiram luñ ko ne boo ko defee am nangam doonte day faat bakkan jalal na ko xiram la gëm xiram yi la gëm gëmatul yàlla moo tax ku am doom war na caa jël ab yan bu diis yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg ca ne nit ki bi fi bàyyi ko li gën ci li ay doomam li ko ay doomam di sante mooy ab yar waaye du alal ju bari ndax su fi bàyyee alal ju bari lu ñu ca def ci lu baax mën na caa am wàllam ndax moo ko fàggoon man sanna sunnatan xasanatan falahu falahu ajruha wa ajru man amila biha waaye nag bu ñu ca defee ab safaan it kenn du ko ci ëppale moo ciy ëppale sax ndax su ko fi bàyyi wutoon kenn du ko ci def safaan wala mu bàyyi ko fi te yar leen waaye bàyyi na fi alal te yaru leen moo tax mu ne nit bàyyi lu fi doomam lu gën ay yar bu rafet te yar bu rafet dara jiitoo ca doylu te loolu mag ñi daan ñu ko dund ci daara yi ni ñu ko daan dund ci daara yi mooy daara lu fa way am dañ lay gëmloo ne sañoo koo lekk yow donc da nga caa war a jox li ñuy wax kullu ñenn ñu naan tuule kii jëkk a jóg ñëw taxaw ngay jox mu koy séddale ba kenn ku nekk am ca aslëf doyaluma la ñuy wax te lu asgor du ko wax waaye aw moom kenn du ko wax nga xam ne dañuy dem ba tàmm ci doo mën a lekk te demoo ca mbooloo ma ndax dañ naan la boo yàlla waanee te ñëwoo fi ñu léemu ko rek nangam ak i nangam te wax nañ dëgg sax nangam ak i nangam bu ko defee bu ñu ñëwee boole lépp ci lenn ndab ñoom ñëpp ñu bokk ko lekk duñ xamoon ko yalwaane woon ka andi woon ñam wu neexa wa ko andi wut waaye ki wéradi woon te demut fenn da cay mën a bokkaaleen ak ñépp moo ne sëñ bu mag bi nattu na ci aw mag ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe woon boole aw mag ndab ci lëndëm gu wax sat def ca dogu yàpp wu mag ku ko laal rek bàyyee ko sa moroom buux ka ca des ñu di ko buuxante ba far ñëpp suur jóg sëñ bi ñëw xool ko kenn laalu ko mu ne loolu ngeen ci jublu ñu ne ko dama ko dab diw ne ko dama ko daj def ne diw ma ko gën a yittewoo yonent bi defoon na ko sallallahu alayhi wa sallam diw jot ko ne damaa defe woon ne diw moom ma ko gën a yittewoo ndax damaa naajee añ buux ko diw moom la alxuraan di wax naan ci saxaaba yi ci alxuraan wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa fi sudurihim xaajatan mimma uutu wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne gone dañ koy teel a toqi su amee juróom-ñaari at tollu ci dal fooy taxawal julli ne ko ñëwal su xamee li muy wax ak su ko xamul ñi ngi nett li suñ mag bi naan soxna jaara danaa wax ak moom booba melagut nii mu mel naa ko mag ñu jëkk ña gaa yu baax ya bind ko moom sax ci xuqal bu kaaw ala sadet am wàcc dañ daan fanaanee taxaw ba bët set sëriñ bi ni mu ko mën a dégg ci soxna si nee nañ tax mu daan néeg ba ñu tëdd mu ne fojjat boobu doonut doonut gone ndax bi soxna jaaree nelaw am na lu ëpp fukki at waaye da daan taxaw rek na ko na mu ko dégg xamut buñ buñ taxawee luñ cay def ak lu ñuy wax waaye fanaa ne taxaw la yaakaaroon waaye bu taxawee ba nga mënut dikkal ko mu tëdd ndànk nelaw cag ndaw moo tax yonent bi ne ku am juróom-ñaari at toll ci dal nañu ko dal di tàmmal bu ñuy julli woo ko mu ñëw taxaw ci pegg bi jar na sax ñett nangoon a taxaw ki sa pegg ak ña nanguwul taxaw nga wutale leen di neexal ñii di bàyyi ñaar waaye fu mu amee fukki at soo ne ko loola tey julli su waxut lu ñor nañ ko bantal loolu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam la te jamono gi léegi nee nañ bu kenn dóor gone ab jullit war naa taxaw foofu seetlu bu baax waaye nañ leen tàmbalee tàggale fa ñuy fanaan buñ fanaanante ak seeni ndey buñ fanaanante ak seeni moroom na kenn ku nekk di beru ci rox xam di tëdd ndax nangam ak nangam ak nangam yii xew léegi si jamono ji yonent bi li yàlla ne du waxe ba kanam bis bu set ñu mën koo gis waaye di leen toq ci bu ñuy lekk ak bu ñuy naan bu ñuy lekk ñu raxasu te lekk seenum ndeyjoor tooge toog gi ne koy taaya tey teg teg mooy bu tibbee tibb bu yam ba sex ko bu mu yoraat loxoom ci ndable waaye ne téye loxoom ba loola mokk mu jàllale ko jéem a fexee tibbaat am na daara yu ne woon fii ci dëkk bi joo xam ne suñ masaan teg ñam bu baax day am ko taxaw tiim dong nga ya léegi ñu ci ëpp ay sëriñ lañ yu xaw yu magaale kooku day taxaw tiim leen ku tibb tibb boo xam ne jaaduwut mun la wàññil mu wàññi tibb tibb ka ca topp topp ca ba mu dellusiwaat ci moom mu laal ndawal gi mu ne ko wàññil mam yam mu wàññi dem balaa laalaat ndawal daa laalaat yi ci des yépp te noonu lañ koy defee ba ndab la àgg nga xam ñiy ñëwaat ñëpp dañ cee mën a barkeeluwaat waaye duñ ko def ne nañ jël mburu mi ñu ne mburu suñ ko laalee rek yàpp waa doyut loolu yëfi ko reedi la ku ko tàmm mën na lu nekk bu màggee bu ngeen di naan àgg leen suuf te bañ a noyyi ci pot bi wala ci kaas bi soo seen dana ko jàngale waaye jàngal leen jaxasoo ak nit ñi suñu la yónnee ci mag boo ñëwee ne asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam nga ne ko ana bay diw nga ne maa ngi nii nga ne ko saa bàyyi ma yónni na tekk ba xam lu mu lay wax waaye nag léeg-léeg it am na mag ñoo xam ne itam loo jàngul mënoo ko tari mag moo xam ne dañ say yónni ay ndaw ñu dem ne ana bay diw mu ne leen ku leen yónni ñu ne sama bàyyi mu ne yéen a xamadi bu ngeen ñëwatee da nga naan ma alaaji bay diw ndax dem naa màkk yett yoon alaaji alaaji bay diw kooku ba mu doonee ndaw noonu la doone woon ndaw waaye nañ leen tàmmal dem jàkka ja tàmmal leen jaxasoog ay dëkkandoo rek ñu dul ay bokk rawatina waa kër gi waaye ci lay buñ buñ ca buñ lañ ko toqee ci yar boobu danañ dem a dem a dem a dem ba loo leen mën a jox danañ ca bàyyi xel keneen ku ñëwagul man ko fi nettali bu yàggutoo suñu mët bu sa jàng nee na daa bokk ak Sëriñ Faliilu Mbàkke fu ñu leen doon ganalee toggal leen ganaar nee na man nee na moom mu nekk ca kaw ganaar ga rek léeg-léeg sëñ bi cuqati sànni ko moom itam muy cuqati bu baax bañ demee ba kaw ganaar ga jeex mu bëgg a dugal loxoom ci suuf suñ falu ne ko bu ko loxo mbut de li ci kaw ñi fi nekk li ci suuf ñi fi nekkul amoon na jamono yoo xam ne tane woon na tuuti loolu Touba gii xam na ci dara Touba moom ci ñaanuk sëriñ bi fii mu agsi bitim réew doon na ci dara ndax mbay gëj na fee mel nam daan mel moo taxoon ñii di dem Ndakaaru ba yàgg ñii dem Abidjan ba yàgg ñii dem Gabon ak i Congo ba yàgg ñuy dem France ba yàgg ñuy dem Italie ba fépp ubbiku ay Brésil ak Argentine ak États-Unis d'Amérique waaye kenn ku ci nekk te ñoom dafa am lu ko doy sëkk loo xam ne tëlatut kenn li sëñ Moussa Ka di wax naan fu ñu xamoon nag dellu fa jaar te kenn tëlatut loo joxe naar réew mi ku ne xam ne kenn tëlatut ay naar kenn ku nekk boppam la tal ndax foo xam ne dañ naan wax bu njëkk dugg ci ak kër nag ana ku bëgg a liggéey ñëpp ne pat ñii naan du ma liggéeyal tubaab ñii naan dañ la fiy téye doo doo dem ñi naan su ma amee këyit àgg ba ci réew mi sax ku ñuy bëgg ku jigéen dañu laaj ba xam day tukkeem reet bu du tukki ñu ne yi daa am kàddu yi ci nekk de su dee tukki léegi dem nañ bay laaj ndax am na këyit ñu ne waaw ñu ne ak ko de gën a ko yaru la de loolu lépp tukki bi indi na ko waaye bu ñuy dem ba yàgg nag la Cheikh Tidiane waxoon bi mu fi ñëwee di gën a si blaat nee na daa am koo xam ne borom këram daa baaxoon ci moom lool lu ne mu defal ko am ku ko gis nag ñaane ko ne ko lu mu lay defal muy wax di lim di lim mu ne ko soo fayoon dem defal na lu ëpp lool ba muy fay dem di ko tàggu si nag ginnaaw ab xaritam moom fekk nañu dóor ko ba yeewu ko ci bopp lal xanaa xamuñu ñiy dem ne tubaab yi fii lañ bëgg a ñëw si ndax fii moo gën a néew ay jàngoro jàngoro yi jikko moo gën a néew jàngoroy pollution pollution mooy saxaar su bari si leen di feebarloo ñuy cancer rek def lu nekk waaye moo ëpp yar ndax waxtu wu ne mën nga koo dox te dara du la ci fekk kenn du la topp ci ay taxes yu metti mbaaru dañoo bëgg a génne gone yi bañ génn ñëw sanc si fi ñoom loolu tam mat naa bàyyi xel te ni ko sëriñ bi waxee sëriñ Tuubaa sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar yal na ko fi yàlla gën a yàggal neewoon na fi daaw ab junju nañ delluwaat ca suufi maam ya delluwaat ca rek la waxoon yam ca waaye loolu mën naa am lu muy waajal mbaaru gone yi dañ leen a bëgg a génn réew mi ba ñëpp tayal ci toog ci réew mi suuf soosee bu tubaab yi ñëwee ñu jaay leen ko loolu it mën naa bàyyi xel kon nañu góorgóorluwaat ci yar bi ak defar gi gone yi jëfandikoo li ñu wax ne Cheikh Sëñ Modou Moustapha ak Serigne Fallou daa lañ ko faral di wax naan Serigne Thierno maam Thierno moo ñu jàngal ban ne ar mu yar ñu bañ na nër murid yi dolliwaat ci yeenu bañ na jar loolu moom lu waaye sañadi sañadi sañ na ko roy ci sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallu ci digganteem ak njabootam waaye ab sëriñ it war na ko roy diggante ci sëñ Modou Moustapha digganteem ak ay taalibeem waaye état itam war na ko jël def ko doctrine état moom du roy kenn waaye doctrine lay wax wala principe principe bu jàngal gone yi bañ gëm seen bopp man mas sama gis benn turki bu ndaw ku dëkk turki ab xale yor drapeau turki ma ne ko jaay ma ko mu yuuxu dem moo woo magam mag ji ñëw ne ma loo ko def ma ne ko defuma ko dara sagar wi laa ko ne jaay ma ko mu ne ma lii mooy mooy suuf kii boo ko boo jaayee suuf si fooy dëkk kon li sëriñ bi wax nañu ko jëfe delluwaat ci suuf si ca suufi maam ya téye ko bu dëgër bala ko tubaab yi ñëwaat di ko jël te yar njaboot gi ci ak doylu ak yaakaar yàlla ak gëm yàlla yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin